nga ci ba tey ci seen scandale du jour de ce 24 juillet ñu déglu ji Tigresse sax ginnaaw euh, coowal ak Diop yi kàddu yu mu yëkkati. salaamaaleykum information pour yéen ña waaxu woon ba ca jaaykatu électroménager yi ngeen jënd fa climatiseur woof ko seen xol yi fas yéenee socc. malheureusement dellu leen ba ca sapeur pompier kenn ku la woo sapeur mu fayal ko xolam bi ndax seen xol mënul seet borom ndey ju liggéey ku ko yéene fande gëléem lay jënd togg ko ba mu baax reer ci ba ci ba mu suur la ci des ñu jàllax leen kii rapport épinglé wu ko kii dig woowu ko kii santé urbaine woowu ko kii ki nga xam ne daa sàcc nit sàcc nit dem jaay ko ñu téye ko muy yaakaar ne Lat xaritam la ca nguuru président Macky Sall Lat Diop ne ko man duma faral ku sàcc nit ndax kenn du sàcc nit di ko jaay kooku la ñu tëj mu génn di tuumaal Lat Diop gendarmerie Kër Massar woo ko dem na ba ñëw ma nga tëdd këram loolu laa amul lu ma leen di informer kii mënuloo leen ko dara. noonu mu nekk kàddu yoo xamante ne kii di euh, Tigresse moo ko yëkkati. ginnaaw bi ñu euh, joxe l'information ñiy joxe l'information juste et vrai ñiy joxe une fausse information waaw Kër Lak Diop fekk nañ fa xaalis bu takku waaw jàpp nañ ko pimpang nañ ko dóor nañ ko saaga nañ ko toroxal nañ ko Lak Diop ñëw ci saalam def croiser les bras maa ngi nii maa ngi ci jàmm ak sama njaboot nag ku xam yoon ku respecté yoon buñ la convoqué da dem Lat dafa dem wuyu ji am nag ñu ci jubilé woon waaye jubilé bi yàggul ne ko am ñu ci jubilé woon waaye jubilé bi yàggul te nag Sénégal nag Sénégal nag neex na nag léegi Sénégal dem nañ ba yéenante kaso Sénégal dem nañ ba yéenante kaso waaye ñu dem ba yéenante dee moom kaso ci gën a ndaw bu ñu demee ba yéenante dee kaso moo ci gën a gën a gën a gën a gën ndaw dañ defaraat xol yi ñun lu ñu boole dafa bëri ñu boole pauvreté yoruñu xiif mar iñaan xol bu ñuul gaaw a mer tension mënatuñoo gudd fan ndax lii yëpp bu booloo ci xol moom pëf lay def nga dee te ba guddi yeewu ñu ne de pourtant de reer na ba suur tëdd nelaw xol ñi na xol bu fiixee da gis nit ki am yaram nit ki rafet nit ki rajeunir xol mooy lépp ci doomu aadama mi demee ba xol yi ñu sol ci lu lëndëm kurub kon tiit jot na mu ngi noonu kàddu yooyu la Tigres yëkkati ginnaaw mbirum Lat Diop bi